assemblée nationale kon démb voté na ñaari loi bi njëkk mooy bii rey définitivement CREI bi ci topp mooy loi bi nangu parenage bi nga xam ne mooy parrainage optionnel maa la wax loolu laas quotidien ne Pastef démb assemblée nationale seul la woon contre tous wallaay na mu ko tuddati mbiri Khalifa Sall Karim Wade moom kenn waxu ci dara affaire yi daal jaaxal na ñëpp président Macky Sall nee ministre yi na ngeen góorgóorlu ci aar suñu waax yi ak protéger surveiller bu baax balaa xale yi di jël mbëkk bi ndax ñiy dee ci géej gi bari nañ Ousmane Sonko juróom fukki fan ak juróom ak ñaara ngi nii ñu ngi ko denc biir këram euh, préfet Dakar nee na waa F24 manifestation bi ñu doon tàggoo pour def ko place de l'Obélisque nanguwu ko bañ na du am Sadio Mané nangu naa dem fekk ji Cristiano Ronaldo ca